def yàlla may ko man damay dem làq ko oh écarté ni écarté écarté yoon ñëw na may dal ko yow Come on. voilà Khalifa Sall tellement tellement il y a des personnes tellement il gis noonu Khalifa Sall dafa am sax euh, euh, moom moo di way juróom bu jigéen vraiment métti na trop dafa xat lool lool lool ba kenn mënu ko euh, vraiment mesurer donc Khalifa Ababacar Sall mu ngi noonu voilà ñu ngi koy gis noonu ci image yi vraiment mu calme

ñëwal à droite. ñëwal

Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu et je le remercie. Merci beaucoup.